une bonne idée moom déjà il connaît le championnat anglais il connaît le championnat anglais def na fa ay jaloore club yu mu jaar yëpp il a fait de, de de très bonnes choses tey il est dans un club boo xam ne que euh, il faut le dire le Bayern est en difficulté gis nañu changement d'entraîneur changement de dirigeant et que tey euh, quand soo dégloo le discours du coach Sadio c'est pas le choix numéro un de de Tuchel donc maintenant Sadio lui en âme et conscience moom moo war a jël la meilleure décision parce que moom moo nekk au sein du Bayern moom moo côtoyé euh, le club moom moo côtoyé c'est lui qui a une discussion avec l'entraîneur l'entraîneur sûrement wax na ko ni que tu es mon choix numéro ou bien tu choix numéro deux choix numéro trois c'est par rapport à ça que Sadio si loolu la war a jël euh, sa décision maintenant ñëpp xam nañu que euh, pour man comparaison j'ai pas comparé Newcastle et de Munich Bayern de est plus grand que Newcastle bien que Newcastle ñi def ay jéego actuellement ni mais Bayern c'est une institution et que nekk pour man Sadio nekk Bayern man moo ma gënal mu nekk euh, Newcastle mais bu fekkee ni il reste au Bayern sans avoir de temps de jeu mieux vaut qu'il choisisse un autre projet boo xam ne dina fa am temps de jeu.